Le li tax ñu daje euh, c'est parce que nous parlons de ni ñu ngi ci Covid 19 bi ci biir xeex bi nag dafa am pàcc boo xam ni daf ci am solo monsieur le président de la république son excellence Macky Sall annoncé que mooy benn aide alimentaire boo xam ni dafa war a dem ci euh, population yi nga xam ni dañu considérer nañ dañ leen impacté si voilà xeex bi. parce que voilà, naa ko léegi léegi ci daje bi mané ne am na ci ñoo xamante ni tey euh, seen xëy na xëy wàññeeku na seen yëngatu wàññeeku na. Euh, seen ay revenu itam wàññeeku na et que gouvernement bi xalaat na ni ñii war nañu xalaat nañ la ñuy def ba gunge leen ci wàllu xeex bi euh, pour nga xam ni toog bi leen laaj ñu toog seen kër dina am loo xamante ni leen leen fa fekk si et que balaa xëy na du yàgg xeex bi bu jeexee dinañ mën reprendre seen ay activités correctement léegi réunion bi nag li taxoon ñu daje ko mooy mettre en place ay comité parce que ministre du développement communautaire dafa am terme de référence yu mu tënk yu leer nañ yoo xam gouverneurs préfets yi sous préfet mettent en place ay comité Au ci niveau local am un comité d'arrondissement euh, de contrôle et de validation du ciblage des ménages vulnérables am un comité communal bo xamné maire bi moo jité bo boo mom moy def ciblage euh mom moy def ciblage ménage yi nga xam ni moom ay communaux maire bi itam dafa am sous comité de quartier yo xamanteni mom lay taxawal ngir mëna def ciblage bi par quartier selon ben quota bo xamante ministère bi déterminé nako jox nako commune bu nek ni commune bi li moy quota am commune bi li moy quota am commune bi li moy quota am tënk ay critères yo xamante ci lañ ko wara défé ba pare jox leen ni leen léegi mën ngeen doxal comme que ñun nak ño fi téwal nguur gi ño fi téwal état bi ñu ñëw indiqué leen yoon bi nga xamni ñom fa lañu wara jaar pour taxawal li nga xamni mom moy ciblage